sa numéro de nga après ñu waxtaan parce que soxna na sa conseil yow nit ku bax nga nit ku ku nit ku gën nga xola kuy def bu metté nga daw buy neex du la fi fekk ñun ay gaynde lañ ñun ay gaynde lañ lu am rek danga koy dékku te xam ni yàlla moo ko dogal lu yàlla dogal kenn mënu ci dara tàqalikoo ak ànd ñoo ñoo nekk ci réew mi bañ na ko ba jëkkër sax bu la koy may dañ su ma juumee ngeen ànd ak man ah, su ma jooyee ngeen jooy bu ma reetaanee ngeen reetaan gisoo am na léegi ku ma woo di jooy rek di jooy nit dangay gore nit munoo wax nit ki danga ka bëgg ba pare am na problème dangay daw kuy def bu neexee nga toog xoolal ma kii Kini ki xara yow budé dee mën naa laa jël kuy def bu nexé buy nexé nga tok bu nakaré nga daw loolu du and bu nexé da ngay tok bu nakaré da ngay tok barki sayidina muhammad yeen ñima japp na japp na leen da dara mënu tax ni ma bayé tay xamna ñima bëgg xamna ñima bañ wax bu amé rek da ngay xam ki la bëgg xam ki la bañ xam ki wax xam ki nga xamni sa la wala du man wax ju ñëw rek dama koy dégg xam nga tax dama koy dégg barki Seydina Muhammad wax ju am dama koy dégg waaye dama ciy jàngat àdduna loo gis ñàngat la àdduna ma chérie loo gis ñàngat la loo gis rek ñàngat la dangay xam ñi la bëgg xam ñi la bañ xam ñi la féete côté xam ñay dàq ginaar di waxaale seen soxla ñu bari dañ lay reetaan fekk bëgguñu la li ne ci xol yi ku ko xool da ngay gis te tey Sénégal la ñu nekk kenn bëggul kenn raw la kenn bëggul kenn raw la ma chérie ci loo nekk. ça va maam Ndiaye naka. yaa gore. Hmm. barke alxuraanu karim gore. Hmm. dëgg la. gis nga nit boo ko bëggee bu nekkee ci ay hmm. problème bu ko nit ñi dee bedd sax da ngay àndaw dama laa gis ci tiktok bi da ngay rayante ndax man ku ah, commentaire ci sa commentaire négatif nga supprimer ko teg ko nee wan ni carrément dama bëgg maam Ndiaye savon.

Thank you.